penc ànd ak jàmm jàmm moo ngi waaj a jeex ci way politique yi rawatina ñi jokk ngir laaj réew mi gannaaw parrainage bi caution yi campagne bi moo ciy topp tax ku nekk ut saw tur bëgg a dugg mbooy gi ngir dagaani baati askan wi l'observateur ne candidat yi jot a yëglu dafa mel ni dañoo ñàkk inspiration ku nekk tëbe nga ca làng ga jël saw wala saw toftal ko ci boo jëlee ku ci mel ni Mahammat Boun Abdallah Dionne Dionne la wax a Touré Mimi 2024 Abdourahmane Mamadou Lamine Diallo MLD 2024 ñeneen yéen i kaay groupe Futur Média ne loolee li muy wane moo di daal bopp sa bopp la parti démocratique sénégalais moom ki nekk ci boppam di Karim Meïssa ci ay mbiram la enquête yéene xëy di enquête ba becc ko ci aw xëtam boole ci samp ne bokk Karim Meïssa lan moo ko nar a xajamal bu weesoo nin ko féexale da koo dese alamaanu téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards ci xaalu CFA yoo xam ne procureur du parquet financier moo ca mën wax lu leer ndax loole mën na koo jural li ñuy wax contrainte par corps l na ni amande yéenekaay bi ne fi mu nag jàppaleen ni Karim Meïssa Wade déposé na caution te itam parrainage bi mënu koo téye ndax bu ko matalewut ci askan wi itam mën na koo amee ci limub député yi mu amee ca péncum ndayu réew ma di assemblée nationale assemblée nationale googee fële si du quotidien xëy di ñu xibaar ne péncum ndayu réew ma la ko tax a jóg moo di amal fa ay débat yu tege ci démocratie te yitteel askan wi waaye lan fa nemmeeku rawatina ci député yi fa nekk fi mu toll sorewul ak marché bu tas teesante defante xaxarante ku nekk la nga dencal sa morom da ngay bàyyi ban jox la kàddu ci assemblée nationale doo fa askan wi waaye da nga fay teesante wala nga fay tuumaal nit ci loo xam ne bu buñ ko toppee doo ci andi benn firnde loolee itam waral ba duñ nekk ci jàmm gannaaw ay jàmm journal L'As ne loolee moo am ci diggante njiitu réew mi fi nekk di président Macky Sall ak njiitu réew ba woon di président Abdoulaye Wade yéenekaay bi ne ñu bëgg ko wala ñu bañ ko Macky Sall moo niiru tigi ci politique président Abdoulaye Wade ci doxaliin ba ci jëfin la Quotidien mel ni ko naan niiru na ko ba ko ci ay réalisation loolee taxoon ba président Macky Sall taxawal fi programme yu ci mel ni PUDC projet yuy lëkkale ak defari yoon waaye journal bi nee na seen correspondant ya ca Bawol ak Kajoor ñoo ko leeral ni réew mi bëri na ci ay gox yoo xam ne ba tey ñoo ngi xaar ñu àggale seen i tali ndax bëri na ci yoon yoo xam ne àggul wala sax liggéey ba yeex ba askan wa di ko jàmbat li nu liggéey ba mu yegg kay moo di sanctuaire marial ba nekk ca Popenguine le soleil national ne ñetti milliards ci xaalisu CFA la ci njiitu réew mi dugal boole woon ko ci programme bi mu jagleele ba moo seigneur Benjamin ko borom ñaan gi di Serigne Mountakha Bassirou loola moo nekk ci xët u njëkku journal Tribune yéenekaay bi ne xalif général des mourides da doon gën a leeral Baye Fall yi ni ki démb ndigal yeenuy tere ca dëkk bu sell ba de Touba te dara nag wóorowu ca ak document ba Serigne Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu taala anhum bindoon ca atum 1980 ngir xaatim ca lépp la ñuy aaye ca dëkk bu sell bi sëriñ bi ne nan yam ca yooyu tere muy bépp ñaawteef bëggatu koo gis ca dëkk ba waaye di watee di nangoy kap ak di tekki lam mën naa ñàkk sëriñ bi ne lépp lu yàq diine bëggu ko faa gis kiy wax ci diine te ñu gis ko ca tribunal démb la ab àtteem daanu l'observateur l'observateur le quotidien turbune source a les échos bés bi ñoom ñëpp xëy di ñu xibaar ne oustaz Omar Sall lu na waaye terewul tribunal dëggal lañ ko doon tuumaal ba daan ko juróom benn weeri kaso yum dul tëdd source a ne oustaz Omar Sall kay dafa delloo avance ki delloowul avance kay moo di professeur Moussa Baldé journal L'Info ne mooy jëwriñ ji ñu dénk enseignement supérieur di njàng mu kawe mi ministre bi ne cours en ligne ci université Anta Diop bu Ndakaaru moom day woy ba keroog atum njàng mi di jeex tribune moom professeur Moussa wax xanaa ba wax jéego yu rëy yi président Macky Sall def ci njàng mu kaayumi diirub lim fi nekk boole ci dig étudiants yi ëllëg gu am solo lan moo nar a nekk ëllëgu ndaw si tax jëkkëram ñàkk bakkanam ca Pikine Les Échos ca Pikine tali bu bees la xewe benn waay moo fa doon xuloog jabaram ba mu jaral ko mu mbëkk ab gaz jaaree faa ñàkk bakkanam fi mu toll yéenekaay bi nee na ndaw si police teg na ko loxo abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar mi ak ci bitim réew